coono jeex na mbokki Thiénaba boutique kaay sañse ñëw na indil leen lépp lu jëm ci sañse góor lu ko ci dalee ci ay tuba yu coton jean ay body couleur bu ngeen bëgg boutique kaay sañse di jaay ay casquette lunette montre di jaay ay robe jigéen yu rafet a rafet boutique kaay sañse di jaay ay dàllu góor ak yu jigéen point bu ngeen bëgg yow élève bi jàngi te amuloo saak ah sa aajo faju na ndax boo ñëwee fii ci boutique kaay sañse dina la jaay ay saagu jàngikaay yu dëgër dëgër yu góor ak yu jigéen boutique kaay sañse yemul rek ci sañse waaye day jaay ay télévision format bu ngeen bëgg di jaay rajo ay téléphone portable marque bu ngeen bëgg di jaay ay accessoire lu ci mel ni écouteur chargeur carte mémoire blindé ay protège téléphone boutique kaay sañse la boo fi duggee di nga fi fekk Ousseynou Ndiaye maam Góor Diop pour ñëw boutique kaay sañse yomb na mu ngi fii ci quartier Cheikh Ahmed Tidiane Chérif jàkkaarloog tali bi jëm directement ci jumaa ja numéro am nekk 76 542 14 99 baa nga def 77 850 03 48 yow mbokk mi may déglu gaawal gaaw dem boutique kaay sañse ndax boo fi ñëwee sa aaju faju